salaamaaleykum gars yi na ngeen def maa leen di nuyu bu baax di leen fàttali yéen a ngi seen canal Galsen Tube ci seen programme comment gagner de l'argent ci YouTube naka la ñuy xaalis ci YouTube ki leen koy defal euh, di Pape Mor Lo yi ñu leen koy defal en wolof di la demander su dee abonné goo nga cliquer ci bouton s'abonner bu xonk bi nekk suuf vidéo bi soo paree nga cliquer ci cloche notification yi bi nekk ci kaw muy toutes les notifications mooy tax vidéo yi bees yi ñuy dugalee nga mën ko am facilement vidéo du jour tey bi nag ñoo ngi ñëw ci thème foncé ak sombre maanaam YouTube nga def ko mu ñuul wala nga def ko mu weex nan lañ koy defee ak ban moo si gën loolu la ñuy ñëw tey kon du ñu tardé vidéo tey bi du gudd dem directement wan leen nan la ñuy defee thème bi soo ko bëggee ñuulal wala nga bëgg ko weexal nan nga koy defee ak wax leen nag ban moo si gën voilà da soo nekkee sa YouTube nii léegi euh, sa YouTube ñuul nii nga ñëw rek connecté wu mais YouTube daal yow dafa ñuul te yow mu jaaxal parce que am na ñoom da seen YouTube dafay weex nga bëgg sa YouTube weex c'est très simple fii ngay ñëw logo bi nga cliqué boo cliquer nga ñëw fii ñu def thème sombre activé thème sombre activé mooy tekk lii dañ koo ñuulal thème sombre bi dañ ko activé la ngay def kon da nga koy désactiver nga cliquer léegi boo cliquer mun la ji la thème sombre permet d'assombrir les surface claires de la page et créer une luminosité idéale pour la nuit essayez la maanaam mun la tem sombre thème bu ñuul bi dañ ko defar ngir parties yi nga xam ne vidéo nekku si yëpp ci page bi mu mën koo ñuulal ndaxte loolu guddi gi booy seetaan moom moo gën a baax ndax da nga ko bëgg activer nga bàyyi nii su fekkee da nga koy désactiver nga ñëw fii bu bula mooy tekki activer nañ ko nga ñëw fii di nga désactiver nga ko jeex na gis nga sa YouTube weex na voilà gis nga YouTube bi weex na voilà mooy lii c'est simple gis nga yaa ngi seetaan YouTube bi léegi gis nga weex na tàll voilà léegi su fekkee sa YouTube dafa weex nii yaa ngi yow YouTube bi dafa weex waaw comme page bi dafa weex mais nga bëgg a am YouTube bu ñuul c'est très simple da ngay ñëw fii ci logo bi nga cliquer soo cliquer nga ñëw fii mun la thème sombre désactivé thème sombre bi bu ñuul bi activé wuñ ko moo tax mu weex nii ndax da nga ko bëgg activer nga cliquer fii dama ko bëgg activer mënu la gis nga le thème sombre permet d'assombrer comme ni la ko waxee thème bu ñuul bi day tax mu day sa luminosité écran dafay normal te day tax guddi gi si lay gën a neexee pour nga seetaan ay vidéo parce que du leeral nañ sa biir néeg bi voilà léegi ndax da nga ko bëgg activer nga ne waaw nga ñëw fii yi nga bouton bi dafa gris gri nii mooy tekki activé wul bu ñëwee fii nga ñëw fii nga cliquer ko cliquer nga ko automatiquement gis nga YouTube bi ñuul na voilà jeex na nga cliquer fenn nii rek génn voilà mu dem jeex na léegi ji nga YouTube bi ñuul na voilà voilà gis nga jeex na youtube gis nga ni mu ñuulee nii noonu lañ koy activer wala ñu koy désactiver noonu léegi nag youtube bu ñuul bi ak euh, youtube bu weex bi xaama indi la ñaari ma dind ko fii def ko fee fii du du deñ en xam xaama indi la ñaari comme ça ngay mën a comparer facilement voilà léegi gis nga bii dafa ñuul bii dafa weex léegi YouTube en général bu njëkk ma nii rek la YouTube meloon avant ñuy def thème sombre voilà danoon weex nii vidéo yi nekk si YouTube bu weex bi inconvénient mooy képp koo xam da nga bëri looy xool écran moo xam télé wala ordinateur wala téléphone da nga bëri loo koy xool luminosité bi nekk ci écran bi muy image image weex bi dafay affecté say bët dafay affecté say bët moo tax képp comme yaa ngi may suivre te fekk nga nekk étudiant wala nga nekk élève di jàng médecine bi ba nga concentré wu ci jàng li nga xam ne mooy ophtalmologie waaw xam-xamu faj bët ophtalmologie parce que ophtalmologie nekk na loo xam ne ci kanam tuuti boo moytul dëkk yëpp ci àdduna bi dana danañ ko soxla te dana fa manqué voilà parce que ak euh, monde bi nu mu niñ ko digitaliser nga xam lépp ci ordinateur nit ñi naan naan jan sëgg seen ordinateur sëgg seen écran yi suba ngoon tuuti phénomène u bët lay indi problème mu bët dina dina dina am ci àdduna bi bu garaaw sax ci kanam tuuti waaw di nga ñoo xam ne sax dañ koy judduwaale boobu mooy tul ndax seen parents yi ñoo leen koy wàll moo tax ku ciy jàng médecine fu mu nekk nii boo jàngee affaire ophtalmologie doo some yaakaar naa ci kanam léegi bu defee li si bon mooy dafay yàq bët voilà parce que écran dafa am habitude soo koy xool ni ñu koy waxee ci olof da nga naan ko xóoju par exemple doo xef mën nga sëgg ci écran lu yàgg te doo xef te li bon ci xool te xefoo mooy sa bët du tooy parce que booy xef xef yi dafay dafay lubrifier sa bët yi daf koy tooyal sa bët yi mooy tax muy mën a xool normal lumière bi li tax des fois bu sëggee ci écran bi yàgg sa bët yi di saf lool la mooy écran en général rawatina téléphone soo ko yoree concentré wu ci lii ba li seetaan benn affaire mën nga toog lu mat une minute wala deux minutes doo xef te loolu c'est très dangereux pour bët voilà ngeen bàyyi ci xel bu ngeen di suivre ti dara écran télé wala ordinateur wala téléphone ngeen di bàyyi xel am réflexe wu même su fekkee da ngeen koy fàtte ngeen koy fàttaliku di xef waa di xef régulièrement parce que xef yooyu mooy tooyal sa bët mooy dundal bët voilà te ek euh, lumière bu weex bi baaxul si bët waaw moo tax man boo ngeen seetloo sama vidéo yi ngeen di seetaan ya bu ngeen gisee sama ecran ni laa ko def mu ñuul parce que au moins partie yi nga xam ne yii nii yu vide yi nga xam yëpp yëpp yëpp yëpp dafa weex au moins day ñuul nii ce qui fait lii du jam sa bët du la indil jafe-jafe vidéo yi yëpp am miniature bu ko defee du def effet bu am solo voilà comme man dafa bëri lu may nekk ci ordinateur bi moo tax ma def ko mu sombre pour mu bañ a yàq samay yàq samay bët voilà différence bi tem bu weex ak tem bu ñuul lool la thème bu ñuul bi moo gën a baax ci ay bët thème bu weex bi baaxul ci ay bët donte internet lépp parce que dafa weex mais léegi site yu bëri ñu ngi commencé di def ñaari option yi nga mën a am option bu weex wala option bu ñuul comme YouTube ni mu ko defee nii. vidéo du jour bi loolu la woon ci thème sombre thème foncé thème clair nan lañ koy defee wan leen leen ko bi ci gën a baax mooy thème bu ñuul su fekkee mën ngeen ko def ngeen def ko voilà su ngeen ko mënul def tam su ngeen mënee wàññi seen luminosité comme c'est écran yi toujours am na réglage boo xam ne mën nga def luminosité bi nga wàññi ko ba bañ a leer naa ñi seen bu ngeen ko defee bu bi nga xam ni dootul foncé man sama luminosité écran boo gisee dama ko wàññi tuuti pour mu bañ a weex tàll yooyu weex tàll yu ëpp yooyu parce que loolu moo gën a gaaw si yàq bët voilà te nànk-nànk lay yàq sa bët doo ko yëg li si bon mooy moo si gën a bon mooy loolu voilà léegi ngeen xamee ko noonu thème euh, bii weex na ñu bëri bëgg nañ ko waaye nag baaxul ci bët voilà bii moo gën a baax ci bët ngeen koy utiliser. loolu moo nekkoon euh, vidéo di jour bi wala euh, sant leen gërëm di leen wax su fekkee amal na leen njëriñ ngeen partagé ko ci réseau yi euh, sociaux yi. di leen jox daje ba vidéo di jour bii di ñëw incha allah rabbi jërë ngeen jëf. ma lay demandé nag su fekkee nag abonné woo ci canal bi c'est très simple boo cliqué ci fii ci bouton bi G oui. boo ci cliquer rek mu génn la bouton bi ngay abonné nga abonné su dee abonné nga ba pare nag cliquer vidéo bii nga seetaan ko mooy vidéo biñ mujjee dugal moom it ay mbir a ngi ci ay tips ak ay secret